بسم الإله إفن الأدار يا الله سفي بقاء به لي فيك يا الله بسم الإله إفن الأدار يا الله سفي البقاء به لي فيك يا الله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 alhamdulilahi rabbil alamin la hawla wala quwata illa billahi aliyil azim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw bu ñu sante yàlla sunu borom subhanahu wa taala julliwaat ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam feddaliwaat sunu yaakaar ci Cheikhuna Ahmadul Xadim noo ngi ñaanal Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na ko fi sunu borom gën a yàggal te gën a dolli ak wéram waaye ñaanal nag jàmbaari lislaam ji nga xam ne moo tax ñu taxaw ci barab bii di Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke moom Serigne Salihu Mbacke yàlla na sunu borom may ko fan wu lool waa ànd ak wér yaram kàttanal ko ci mboolem naal yi mu naalal lislaam yëpp di ko liggéeyal Serigne Touba suñ borom bàyyi ko fi ba yëpp mu àggale ko te am ci ngërëmul Serigne bi. mbokk yi seen émission ëttu murit ngeen baaxoo di ko ànd ak seen mbokkum taalibe Fallou Galassili ci seen télévision lam Fall TV di ko amal dimanche ju bu 22h jotee ci guddi tey jii seen émission ëttu murit ñëw na ci ëtt boo xam ne ëtt bu am taarix la ëtt bu am cosaan la waaye ëtt la boo xamante ne bii itam nag Serigne Touba Xaadimu Rasuul gañeeti na fi waaye ëtt boo xamante ne bii saytaane jooy na fi wala dee na fi muy barab bi ñu toll di Touba Mbakke di ancien stade bi nga xamante ne bi ku ne xam na ne tere footballukaay lañ ko defoon moo taxoon ñu miire ko. tey jii nag la jàmbaari lislaam jooju dog buum yooyu tër fi saytaane rendi ko fi nga xamante ne bii fi lañ daan wax rond central bi ñu daan teg bal bi arbitre bi joxe départ foofee la def tey jii jumaa ju mag joo xamante ne bii fa la ñuy eh, wéetale borom bi subhaanahu wa taala di fi liggéeyal Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ma ànd ko ak sun mbokkum taalibe Serigne Cheikh Amar xam ngeen ne bari na yu bari ci ay barab yoo xamante ne bii ci bare bi Serigne Touba yi la buñ fay dem ñoo ko ànd ñoo ànd ak moom ñëw fii nag fas yéene ànd ak yéen seen émission ëttu murit dama koy bàyyi rek mu nuyoo ak bokki taalibe yi su ko defee ñu daal di tàmbali ci biir waxtaan wi. jërëjëf jërëjëfati Serigne Touba Serigne Fallou Galassi la ñu ngi lay sant cant gu wér ci prier gi nga ñu prier ci jataay bu am maanaa bii nuyoo bu am solo bi nga xam ne nii nag nuyoo nga ko. damay jël sama nuyoo rek sof ko ci nuyoo bu am maanaa bi nga xam ne nii ubbee nga ko jataay bi Sëriñ Fallou wax nga dëgg barab bi nga xam ne ci lañu taxaw yaakaar naa ne symbole la symbole la ci ni nga xam ne noonu la Sëriñ Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadimou Rassoul nekkee symbole ci àddina bi nga xam ne day ñëw fekk lëndëm mu indi cëg leer day ñëw fekk ñu gëlëm mu gindi ñi day ñëw fekk ñu wàcc yoon wi jël ñàll wi sëriñ bi tegaat ñu ci yoon wi loolu nag mooy barab bi nga xam ne jàpp naa ne yow de apt nga pour wax ñu taarixu barab bii apt nga pour wax ñu fii nga xam ne fi la ñuy defee ëttu mburit te muy ëttu mburit nag te doona koon démb doona koon bëri démb fii dafa am taarix li tax ngeen xam ne jataay bii ëttu mburit taamu ñëw fii defee fi waxtaanam mi nga xam ne moom lay baaxoo di def naka jekk ëtt ngi nii nag démb ak bërk démb doon ëttu mburit ëttu leneen la woon waaye tey moom ëttu mburit la ku gis nii nga xam ne noonu la taaroo nii nga xam ne noonu la yanjoo nii nga xam ne noonu la melokaanoo ci wàllu environnement bi ak ci wàllu jëmm nga xam ne Touba ngi dox ndànk nag jëm fan fépp foo xam ne nii dañu fay wax lëndëm mu dugg fa mu leer nañu fallu Fallou Gallas la jërëjëf euh, El Hadj Cheikh Amar euh, jërëjëf euh, sunu caméraman yi di El Hadj Fallou Sylla El Hadj Fallou Sow Serigne Ousseynou Mbodj barab a ngi nii xam ne boo xam ne Cheikh incha allahu rabbi danañ ci tabbi ci taarixu barab bi ba tax ñu neex ne lii nag mooy vrai ëttu murit bu njëkk. manes na koo tudde woon ëttu saytaane manes na ko ne tudde woon ëttu saytaane lu taxoon mu nekk ëttu seytaane boo xoolee ne kër maam Cheikh Ibrahima Fall a ngi nii di Paleen boo xoolee nii Daaru Salaam a ngi nii di kër maam Cheikh boo xoolee ne Daaru Alimul Xabeer a ngi nii di kër sëñ Daam Abdourahmane Lo boo xoolee nii ne taqe ngi nii di kër sëriñ mu taqe sëñ Ahmad Seck taqe muy barab boo xamante ni kutumbal bi mu nekk kutumbalub yàlla la ñu amuñu benn xalaat lu wal fi jël fi cent mètres yoo xamante ne bii dañ ko def mooy barab boo xamante ne bii doomi Serigne Touba yi buñ masaa di romb ci tali bi di dem ci lañ daan seen ñu tekk fi ay camp def fi ab tribune ñu defi footballé loolu yaakaar naa ne ku ne xam na ne fu terrain football war a mën a am jaaduwut ci barab bu mel nii nga xam ne moom la nekk loolu nag bi yàlla dogalee mu nekk terrain football bu yàgg mag ñu bari yàgg cee jàmbat mënuñ ci amuñ ci menn pexe boo toogee Daaru Salaam bu nuy julli nga dégg yuux yi boo toogee Paline bu ñuy julli nga dégg yuux yi boo toogee Daaru Alimul Xabir bu ñuy dégg julli nga dégg yuux yi foo ci man di toog bu doomi Sëñ Tuubaa di romb fii seen yuux ya di fa am loolu laa wax ne liggéey bu rëy la boo xamante ne bii ngir jële fi loolu rek dara bañ fee amaat sax ak jaamu yàlla la woon goo xam ne gu rëy lay doon mm-hmm. loolu nag bi yàlla dogalee mu tàbbi ci loxoy Serigne Salihu Mbacke xaadimu rasul da koo dénk Serigne Modou Aminata Fall. nekkoon xalif général de Baye Fall di doomi Cheikh Mahamadou Moustapha Fall. lim fi njëkk a def mooy tudde woon ko toolu murit di wàcc. toolu murit di wàcc di fi bay su gerte gi àggee mu yët ko Serigne Salihu bu ëllëgee mu bay fi dugub góob ko yët ko Serigne Salihu biñ demee ba nga xamante ni loolu nooy na nag Serigne Salihu dem àjjana. terrain bi tàbbi ci loxoy Serigne Cheikh mu Serigne saaliwu mi nga xam ne fu barab rafete rek yàkkamti na caa jot ba def ko néegub yàlla fu barab tàllee yàkkamti na jot ba def ko daaray alxuraan yoo xam ne day gindi doomu aadama yi di jënd ay barab yu seer ca Ndakaaru ca France ak ci biir réew mi fam ci man di doon ca Mbuur barab bu seer bu ne boo xam ne buñ ko jëndee moo war a nekk ay milliards Serigne Cheikh yàkkamti na koo jënd ba jox ko yalla borom bi subhanahu wa taala loolu moo tax nag bi yii tàbbee ci ay loxoom nag moom mu profitoo nag gaaw daal di wax ne nag kon Touba kat ndakate am na aw sant ndax boo ne Touba mbakke ngay wax te barab bi mi ngi nekk diggante Touba ak Mbacke kon naa fi def jumaa ju tudd Touba Mbacke digg stade bi. Hmm. fila la bi nekk noonu laa koy waxee fi la sëñ seex def jumaa mu wóor na ne muy jumaa yi juróomi koñ. ci rond central bi ci bi. Hmm. mu ne fii ngeen daan taxaw. Hmm. arbitre bi joxe départ coup de vent bi am ngeen door bal bi fi laay taxaw coup de vent bi am ilimaan ji kabar wax weetal fi borom bi subhaanahu wa taala yaakaar naa ne loolu moo tax tey jii jumaa ji boo ko xoolee ba ko sëriñ Seex tàmbalee ak léegi yàkkamtiwu ci dara wootiwut aw tegu xeer lépp lu mu ciy def rek ci ñàqu boppam lay doon muy li li muy ñaqal boppam di ko liggéey ak li taalibe yu sell nag moom di ko liggéey di ko ko jox mu ne leen du ëllëgee du ngeen ko layoo man bu soobee yàlla kenn ku ci nekk buñ taxawaatee fi borom bi subhaanahu wa taala sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul toog bu ngeen ko nee sëñ Cheikh mii nga ñu bàyyee woon danañ leen ne la ngeen ma joxoon mi ngi nii yaakaar naa ne kenn du ko topp dara fis sindu su ko ko moo tax nag lu ko waay jox mu ñëw defal la ko ci néegub yàlla wala mu defal la ko ci daaray alquran ci lañ taxawee ci barab bii nag sëriñ Cheikh mu nekk barab boo xam ne barabu jaam jaamukaayu yàlla la nekk ci barab boo xamante ne bii buñ dee xool li fi sëriñ Cheikh def danañ ci jëm ci wàllu garab yi danañ jëm ci wàllu ndox mi mu fi def danañ jëm ci wàllu daaray alxuraan yi mu fi naal danañ jëm ci yeneen liggéey yi nga xam ne sumb na ko te bokkut ak liggéey yi muy ay barab yoo xam ne ay ëtti murit lay doon sëriñ Cheikh Amar jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ fallu xam naa yooyu danañ ci ñëw ci kanam tuuti nii mu ko waxee ngir mu gën a leer ngir mu gën a yaatu waaye barab nii yaakaar naa ne am na ñoo xam ne dañ naan lii de bu bu tàbbi ci sunu loxo ba ñu def ko ay R plus 5 def ko ay apartement def ko ay HLM def ko ay cité mhm. def ko ay centre commercial waaye borom yàgg naa fàggu barab yu mel nii bu ko nit ñi songee di ko ci dikk ay millions mu ne leen gis naa koo xam ne moo leen ëpp njëkk te lii li tax mu am solo daf may fàttali sëñ Fallou mhm. l'islam bi mu duggee biir Europe mhm. bi l'islam nekkee ca biir Andalousie am fa doole lool ba Espagne l'islam nekk fa gaa yi dem ba yëg seen bopp saggan ba ñu génne leen fa. Mhm. kenn ci njabootug sëñ Touba gi di Cheikh Mouhamadou Mourtada. Mhm. delluwaat fa fexe ba jënd fa ay këri sëriñ Touba. murid yi di dajawaat ca Andalousie. Mhm. baatu ashadu an laa ilaha illallah ashadu an muhammad rasulullah di jibaat baatu allahu akbar di jibaat foo xam ne nii lislaam dafa amoon doole lool tey nañ ko méngaleeg bërëb bi yow ndax kat tuubaa ngi nii mbàkke ngi nii ña tuur la aku sant ñu nar a sàggan ba ñu tàggalee tur wi ak sant wi tey kenn ci njabootu sëriñ Touba gi dox di dugg ci biir Mbacke di dugg ci biir Mbacke di ko def Touba di ko santale Mbacke loolu nag yaakaar naa ne bu yaatoo comme ni mu koy defee ci barab yu nekk dina doon doonaat liggéey boo am solo bi nga xam ne moom la Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba di mësa a liggéeyee lislaam ngir gindi jaam yi rek Serigne Fallou. jërëjëf euh, sëñ Cheikh mar mhm. jërëjëf itam mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ngi jàkkaarloog ñun di ñu seetaan ba tey ci seen émission bii de ëttu murit ñu di ko amale fii ci Touba Mbacké muy barab bi nga xam ne moom la Serigne Cheikh mu Serigne wu tànn mu nekk ci diggante Touba ak Mbacké nekkoon ancien stade boo xamante ne bi mooy stade Mbacké Bawol bi mu def fi jumaa ju sell nii Serigne Cheikh doon koo xamante ne bii Serigne Cheikh Amar noonu ma koy faral di waxee moom itteem jëpp mooy liggéeyal yàlla liggéeyal yàlla ci jaami yàlla yi nag la koy def ndax kuy jaamu yàlla ci jaami yàlla yi nga koy def topp yàlla la ñuy def ci ay rakka topp yàlla lañuy def ci moytandiku lu riba topp yàlla la ñuy def ci dem màkka topp yàlla la ñuy def ci yéen mbooleem xeeti ponki lislaam yi nga xam ne santaane na ko waaye jaamu yàlla nag ci jaami yàlla yi lañ koy jaamu moo tax sëriñ Seex boole topp yàlla ak jaamu yàlla ni muy toppe yàlla mooy fasut yéenee teg ci tànkam loo xam ne astaxfirullah dana ko ci làmmiñ wi loo xam ne astaghfirullah dana ko ci fekk fasut yéenee xool ci bëtam bi loo xam ne astaghfirullah dana ko ci fekk yooyu yett nag sëriñ Seex saa yoo ko bëggee gañe da ngay fexe ba téye sa sa sab tànk mm-hmm. fexe ba téye saw làmmiñ mm-hmm. fexe ba gëmm say bët Serigne Touba daf ñu jàngal ne soo doon dox ci mbedd sax na nga na nga damm sab gis na nga damm sab gis ndax boo yëkkatee sab gis mu ëpp sab tànk lu ëpp un mètre wala deux mètres mën naa am sa bët yóbbu la nga xool loo xam ne soo xool duutu ko mën a muñ te itam sa kàttan du la ko mën a jox kon dammal sab gis yow mi nga xam ne yaa ngi bañ a gis loo xam ne astaghfirullah dana la ci fekk te ku ne xam ne ne kuy wax kuy dox ci àdduna te damoo sab gis faw nga gis lu la astaghfirullah fekk kuy dox ci àdduna te sakkoo say nopp faw nga dégg lu la astaghfirullah fekk kuy dox ci àdduna te gàttaloo sab tànk faw nga dem ci barabu la astaghfirullah fekk loolu nag sëriñ Cheikh dafa fexe ba tënk ay tànkam tënk ay bëtam tënk aw làmmiñam ci xëy dem ca tool ya ak dem ca daara ja su ko defee bu dee yëkkati kàddoom ci xasiday sëriñ Tuubaa yi lay jëm wala alquran waaye bu dee yëkkati loxoom nag di jëf nag ma ngi koy jëfe ci toolu yàlla bi muy tabax jumaa joo xamante ne bii yàlla yi kese tax mu tabax ko ta lam cay jëlee ci alal lu lew lay doon loo xam ne mën naa dem màkkatal mukarama mën a dem madinatul mën a dugg ci barabu Serigne Touba bi moom lay tabaxalee Serigne Touba ay juma su noppee nag def ko li wa ci laahi ña fay julli defa julli ngir yàlla moom mu delluwaat ci aspu ko sam di jaamuwaat yàlla loolu mooy tax itam su jëlee alalam bay ba am mbayam àgg ya ñuy ya ñuy fàggoo lu lew lépp mu mu fàggoo ko lew su ko amee ba noppi nag tabax ci daaray alxuraan yóbbu fa nangami junniy nit yor seenum koddu yor seenum dund yor seen wér-gi-yaram di leen jàng li ci laahi te dërëm dug ci fek te it du fayu bàyyib kenn bu sam njàng àggee nga doon nit ku xam ne danga amal njëriñ lislaam bi waaye da nga amal njëriñ sam réew Serigne Cheikh bayi la nga dem liggéeyi loolu mooy firndey Serigne Cheikh mm-hmm. waaye danaa ñëwaat ci yow beneen question boo xam ne mm-hmm. dañuy wax ne mm-hmm. bala ngaa mën a moom sa bopp dëgg nag da fajal sa bopp. Serigne Cheikh nag ci wàllu fàggu. autosuffisance autosuffisance alimentaire nga xam ne mooy bay di dundee sëriñ seex boo duggee fii li nga fi fekk ci ay garab fekk ko fi am ndox yeneen ya ci aju lépp amu ci loo xam ne sëriñ seex dana ko jëggaani lu ci nekk dafa yar ay dongo yu ne fii yoo xam ne dafa tàggat seeni xel tàggal seeni xol tàggat seeni cër tàggat leen ci jaamu yàlla ba mbooleem xeeti li ñuy def lu ci nekk boo dikkee ay bàyyi caaya nga fi fekk yu sol ay sabadoor bu bu ngoon jotee ñuy tudd baatub yàlla bi laa bu liggéey jotee ñu dem liggéey suñu noppee génneel la loo xam ne boo demoon Europe doo fa fekk lu ko dàq boo demoon euh, Afrique itam doo fa fekk lu fa dàq Serigne Cheikh Amar. jërëjëf Serigne Fallou da nga wax sànq lu lu am solo ci ki nga xam ne moo jàmbaar ji nga xam ne moo tax ñu ñëw fii tey di fi defee ëttu murit ku gis ni nga xam ne noom la soppee xar kanam bu barab bi nga xam ne terrain football la woon tribune ba nekk nële yaakaar naa ne ñi xam Mbàkke xam barab bii dinañ xam ne xar kanam gi soppeeku na te sëriñ bi du bàyyi benn benn benn benn pàcc ndax bu ngeen gisee environnement bi nii nga xam ne noonu la defee garab yi ci biir fii nga xam ne mooy jumaa ju am maanaa ji aligné leen aligné garab yi ci alignement boo xam ne nii bu mucc ayib la nga gis leen mu def leen ay sàppe yoo xam ne nii kenn ku ci nekk da topp sa moroom ba fa mu yem lii bu fi màggee day doonaat beneen environnement ci biir Mbacké Bawol te da nga wax ne autosuffisance alimentaire Sëriñ Tuubaa de moo ñu santoon ca 1926 ba mu laajtee ñaar fukk ak juróom ñett yi ne dama bëggati lépp lu ngeen bëgg a def ngeen di def nii sëriñ bi nag daf koo dégg bu yàgg moom moom lépp moo koy defal boppam waaye loolu dafa am loo xam ne dañ koy tekkee ci li ñuy wax ne lépp ci sunu borom la jóge waaye lépp ci sunu borom la lay dellu it <laughs> ah rien ne sa crée rien ne se perd tout se transforme mm-hmm. sëriñ bi lu mu yor ci yàlla la ko jëlee kon lépp lu mu yorit ci sunu borom la koy daloo looloo tax nga wax ne moom li muy def yàllaa tax mu di ko def lii taaral lislaam moo moo tax mu di ko def sagal Sëriñ Tuubaa Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul moo tax mu di ko def ñëw fekk barab bu mel nii def ci ay centaine de millions ñu ne déet na waay nga defaat ci tabax bi ay centaine de millions ñu ne déet na waay nga def ci décoration boo xam ne bu mucc ay te la ku ko jub dina xam ne fii kat barab la boo xam ne bu jara laajte la waaye boo laajtee dañ naan la ëttub lislaam la ba pare di jël en charge ci ay téeméeri téeméeri dongo am na loo xam ne dama ko for ci benn bërëb du ma wax dama ko siif wala dama koo sàcc ci bërëb seen ne sëriñ bi li muy jëfandikoo ci wàllu dund yooyu rek dana dem ci ay dix-huit tonnes ci fukki fan ak juróom ci weer yu mbokk yi di dem ci lu ëpp cent trente bidon vingt litres diwlin diwlin lu toll ci ay huit cent ay quelques kilos de kafe suukar si ay ton la te it dugguma ci ci leneen ak ci leneen ci leneen ak ci koddaay li ak ci non loolu ay ay ay fan la mhm. léegi nag imagine loolu ku ko téye ba pare barab boo seen gis ne lislaam a fa jekk mu jaral la lu ne nga def ko ci ay koppar taaral ko ba mu jekk delloo ko at lislaam te doo ci séentu dara nag te doo sant doo bëgg sax ñu wane ko waaye nag xam nga ne lu ne fang moom kenn du ko jeex lii nag mooy jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi kon ëttu mburit ñëw na nag ci dëgg dëgg ëttu mburit sëriñ macha allah euh, jërëjëf sëñ Cheikh ëttu ñëwaat na dëgg dëgg ci ëttu murit ñëw na ci ëttub lislaam dugg nga ci sëriñ Cheikh euh, ci li nga xamante ne bi moom lay liggéeyal lislaam boo ko tàmbalee ca jumaa ja mu njëkk a defar nga xam ne ma nga nekk ci corniche ba yaakaar naa loolu ci jamonoy Cheikh Saalihu la te gis nga sëñ Cheikh boo tegee ci aw yoon yàlla moo lay niital fi ngay jëm mm-hmm. euh, sëñ Cheikh boo xoolee jumaay corniche ji bi mu pare ba muy ba mu koy jox sëriñ Saalihu ci loxol sëñ Muntaxa la ko teg. dëgg la ngir lan xam ne ne ñoo bokk baay muy magam. te xam na ni mu demee ci moom mu foog caabi ji teg ko ci loxol mun Muntaxa wan ko ne ko dama doon liggéeyal lislaam jumaa ba mu noppi nag ci toolub sëñ Tuubaa bi ki fi nekkal sëñ Tuubaa la ba nga jox te yaay sama kilifa. sëñ Muntaxa fab caabi ji yët ko sëñ sëñ sëñ Saaliwu sëñ Saaliwu jox ndigal sëñ Muntaxa ne ko nañ ko ubbi yaakaar naa ne bi ñëwee ci sëriñ Cheikh di wax ak moom def na daal def dara ba noppi di wane naan wax leen ko wala wane leen ko day mel ne day am lu ca nëbbu te jëf ji ay nit ñëw nañ fi ba tàyyi bëgg barab bi dig ma ci ay millions ma xam ne jaay ko yàlla moo gën ginnaaw doomu aadama bëgg na ko man cee ñàkk wala ay cent cinquante millions ma xam ne lu doomu aadama man cent cinquante millions suñu borom mën na ci cent milliards ma ko jaay yàlla moo gën a moo gën a sakkan yëmut ci jaay barab ba yàlla waaye mu ne naa wutiwaat sama alal nag tabaxal ko yàlla su ma ko jaayee terrain bi ba noppi naa ko ko tabaxal ba mu gis nga boo bëggee lu seer faaw nga ñàkk lu seer waaw yàlla li mu yor daf koy jaay mayewu ko waaye boo ko jëndee nag bu la bu la wóoree ne jaral na la moom yàlla dafa lay nattu na la ndax jaral na la boo ko dee jaral na ma ay soobul su la ko wóoree ne jaral na la nag jaral na la nag moom moo lay gàttandoog ndimbalam xam nga sëñ Tuubaa bi muy tàbbi ci géej gi di julli ñaar yàlla daf koo jaral waaye xamut lu mu cay fekk waaye bim bim bim sànnee ab deram yol jëm ci ndox mi te mu wóor ko ne ab bawal bawal la xamut cim ndox dara te bakkanam bi ci loxol suñu borom subhanahu wa taala yàlla na ko ne bu la jarale rek nga xam maay kan tey ba sëñ Tuubaa ne cëpp ci ndox ma la yàlla na ko fe da nga fa fekk nag man may aji dimbalee ji nga xamante ne bii ku wakkirlu ci man doolaal suuf mu taawul ko deram boobu sëñ Tuubaa julli loolu da koo jaral mm. waaye nag bu taxawoon ca der bato ba rek naan jaral na ma jaral na ma ah, ah. sëñ yàlla du ko fa feeñ te bu fa desoon it di ndam di ndam mm-hmm. sëriñ tubaa loolu yàlla def ko jaraloon mm-hmm. sëriñ seexit mm-hmm. boo gisee sun boroom di ko gàttandoo ak ndimbalam mooy yàlla daf ko jaral yàlla daf ko jaral ci mooy day am barab bu seer boo xamante ni mën naa maye ay milliards mu ne yàlla jar yow de jaral nga ma sama barab bii ma jaay la ko te bañ ko jaay àdduna ah, sun borom da ko a jaral naa la mu ne mu ne ko kon defaral ma ko sëñ Fallou waaw damaa bëgg a taxaw tuuti ci jaral na la. ak yàlla jaral na la. Mhm. damaa jàpp ne. Mhm. ndax li jaamu yàlla jaral Sëriñ Tuubaa Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul. Mhm. jàppkar naa ne musu koo jaral benn jaamu yàlla. déedéet. li ko jaamu yàlla jaral parce que jaamu yàlla moo ko jaral ba wartee foo jotee ak fu mu ko mun di fekk da koy jëfee ak lu ko ca mun di fekk dëgg kon jaral na la googu kon bu ñu ko toppee xanaa mooy waral kenn ci njabootam gi dem ci barab boo xam ne mètre kaare bi yaakaar naa ne ay centaine de mille lay jar demal Almadi ñu jox la fa barab bu yaatu nga ne yàlla jaral na ma dama koy delloo lislaam xanaa loolu mooy yàlla jaral na la dëgg boo fa jógee bu la neexee nga jaar mbuur fekk yaa ngi génn ci daara yi mm-hmm. kon yàlla jaral na la jooju nga xam ne mm-hmm. moo jaral Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba mm-hmm. lu benn jàmm bu euh, loo xam ne kenn ci àddina yàlla mosu koo jaral lu toll noonu moo tax tey sunu borom tàggatal ko mu am ay sët yoo xam ne li leen yàlla jaral jaralu ko kenn waaw xam nga seex jaral na ma boo gisee ne sëriñ seex dama la wax ne la corniche la njëkk am barab barab boobu yaatuwutoon mais bi mu ne yàlla jaral nga ma ba jaay ko bëri borom da koy tàggataatal beneen bu ko gën a seer ndax da lay xool toujours sunu borom da ko tàggataatal beneen barab bu gën a seer corniche yóbbu ko mbuur tourisme bépp jëm Mbuur suñ borom di ko xool ba xam yàlla jaral na ko wala déet sëñ Cheikh wanaat yàlla na ko ba tey jaral nga ma mm-hmm. joxaat borom ba yàlla mu yóbbuwaat ko almadi mm-hmm. joxaat ko fa beneen barab di ko wanaat na ko ndax yàlla jaral na la sëriñ Cheikh wanaat na ko yàlla jaral na ma mu joxaat ko barab bi xam nga yàlla du ko jox barab bu bu bu bu woyof barab bu seer bu mën a am ay milliards bu valeur bu nekk ci point la ko yàllay jox di ko seet nag ba xam jaral na ko déet waaye waxtu ne sëñ Cheikh a ngi wane yàlla jaral na ma su ko joxee ba noppi génn alalam mënoon na ne li ma yenu ci ay dongo di leen dundal. 18 ton ku koy lekk par 15 jours. moyen de un mois. 130 bidons diwlin ku koy diwloon ci lu moyen de un mois. suukar ay 800 kilos. café gi café ay 400 kilos. yeneen yi ci ajo koddaay loolu ku ko yenu woon da nga naan gal fan naa lii doy naa yenu yàlla. waaye day won yàlla na ko. ndakate lii ma yenul lépp kat wuma ci dara yaa ko yenu in tansurkum allahu yansurkum fala xaaliba lakum waa waa in yaxsulkum fa man sallazi yansurkum min baxdihi sëñ ablaat noona bu la yàlla dimbalee mm. keneen doo tooloot ci dara waaye bu téyee ndimbalam keneen ku la mën a dimbale ginnaawam amut moo tax sëñ saax def tawakkul ci boromam subhaanahu wa taala wakkilu ci yàlla bañ a tàllal kenn loxoom nag mm. ndax lii muy def mm. laajoon na muy wut ay aide laajoon na muy bind ay leetar ay bailleur la wutoon na jaaroon na muy wut ay bailleur de fonds waaye sëñ seex tàllalut kenn loxoom du association du ONC du gouvernement du ab ministre lim def daal mooy. ina arde waasihatun fa iyaaya fahbuduni suufu si yàlla si yaatu na fu ma ko fa jaamoo yàlla fekk ma faak ndimbalam wa ma min dabbatin fil arde ilaa xalallaahi risquha am na mel ne mag mu ma woon ku dund ba déwén lekk ba déwén mhm. sëñ Seex xam ne moom ginnaaw yàlla téyel na ko bakkanam mhm. téyel ko ay cëram fu mu a nekk yàlla dana ko jox lu muy dunde yàlla dana ko jox lu muy sol yàlla dana jox njaboot gi mu àndal lu ñuy dunde ak lu ñuy sol mu ne kon naa wàkkilu ci yàlla looloo tax mu ñeme àll bi. Mm-hmm. looloo tax nag tàllalut kenn loxoom. waaye seex. Mm. da ngay dem ci barab fekk sëriñ seex defar ko ba barab bu mucc ay mm. mu tegaat ci yeneen yoo xamante ne bi da nga naan yii kat ay tegandaay la ndakate lam ci jublu mooy taaral lislaam mm. xoolal barab bi boo fi taxawee. jàkkaarloo ak tàndarma yi. xool ñeenti xeb xebla yu ko wër. Mm-hmm. ma wax na la Paaleen a ngi nii. Daaru Salaam a ngi nii. Daaru Alimul Xabir a ngi nii. Mm-hmm. Touba ngi nii. mu def fi bara bu mel nii ba noppi defar fi nag. espace boo xamante ne bii mm. boo fi jaaree sa bakkan dana ko yëg mm-hmm. boo fi jaaree sa bët dana ko yëg mm-hmm. waaye boo ko xoolee ba mu bëgg laa yóbbu ci adduna nga jàkkaarloo néegub yàlla ndakate fu baax fu ne mm-hmm. yàllaa ko moom te jaamu yàlla rek la si war a def lu baax lu ne lislaam ko moom bu ñu nee lislaam ñun li sëriñ Muntaxa wax barki démb sëriñ bi doy nañu sunu diggante ak boromam yaakaar naa ne ku xool climat bi fii boo duggee ci biir di nga xam ne ute na ak climat bi nga xam ne moo nekk ci biti kon li nga wax sànq ci indépendance ndekete jullit bi balaa moo am indépendance dëgg dëgg dëgg dëgg moom boppam day mën boppam ba du soxla kenn ku dul ki nga xam ne mooy bailleur bu mag bi nga xam ne li mu yor du jeex bailleur bu mag bi nga xam ne li mu yor laaj ko mu jox la ko rek la bailleur bu mag bi nga xam ne du tàyyi mukk di la jox waaye nag loolu faw faw sëriñ Fallou nga wakkiirlu ci yàlla mm. doyloo yàlla mm-hmm. yaakaar yàlla mm-hmm. wóolu ko mm-hmm. te loolu la ñu sëriñ Touba jàngal ba sëñ Fallou yaakaar naa nag war nañoo mën a dugg sax ci biir ngir gën a mën a euh, familiariser wu ak barab bi nga xam ne ni sëriñ bi fàggu na ko waaye ndekete li ñu sëriñ Touba di jàngal dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy ko yaakaar yàlla la yaakaar macha allah jërëjëf sëñ Cheikh ah, jërëjëf itam bokki téléspectateurs yi jàkkaarloog ñun seen émission ëttu murid di amee fii tey ci Touba Mbacké di bawal sëriñ Cheikh def ko tey jii muy daaray lislaam joo xamante ne bii des fii jaamu yàlla di fi jàng alquran ak xam-xam eh, sëriñ Cheikh wa nga dëgg koo yaakaar yàlla la yaakaar kon dawal di wéeru ci yàlla ma nga xamante ne bii moom la sëriñ Tuubaa waxoon naan xaaloo li yarkan li abwaabi salaatini tahus jawaisa tuxni kulla ma ini nee na ba man mag ñi ñëwalee di ma wax na ma dawal jëm ci buuri adduna yi ndax ñoo mën a yor ndimbali adduna la leen nee na fa xultu asbiya moom nee na leen dama damay wakkiirlu ji ci yàlla mi nga xamante ne bii bu as nguur amee dara lu amee nguur rek yàllaa ko jox nguur bu yàlla téye yëfam kenn dutu ko kenn dutu ko mën a dimbale naa daw wakkirlu ji ci yàlla moomu moo tax Serigne Cheikh daw wakkirlu ci boromam subhanahu wa taala di ko tàllal loxo moom dong kon nag eh, sama caméraman yi damay ànd ak yéen demaat ci yeneen barab ngeen jàkkaarloo ak jumaa ji xam dëgg dëgg li Serigne Cheikh liggéey fii waaye Serigne Cheikh mhm. bon fàttali ne def mhm. Serigne Cheikh day wax ne man du ma def ba noppi naan kaay leen wane waaye nag am na lu mel ne ma nga ah, ab géwél bu toppee ci ginnaawam sangam <laughs> bu xaree ba daan am na droit nag jël ak xalamam tey yooxu te naan sama sang ba daanu na loolu moom nañu jégge rek waaye sëñ bi loolu moom kon ñu dem ci biir nañu ko jégge rek waaye lu mënta ñàkk macha allah jërëjëf jërëjëf fajaani bima bihi fajaana baqim mumitun wal فجأني بما به فجانا باق مميت والبقاء جانا فجأني بما به فجانا باق مميت والبقاء جانا قولي قول يحجل المرجانا والدر والياقوت والسجانا للواحد القحار من لبانا كوني له حمدي بما استبانا الحمد لله الذي أحتانا الحلم والحمل والأوطانا له شكري وكفى الشيطانا كفاية الباقين ما أطانا حمدت حمد الحامدين لنا بالقلب قالقا وراء مولانا محى الفرا والذحذح الفتانا وذكره الحكيم قد آتانا دعوته وقبل لي ألانا قلب الذي حسدني فلانا لؤ قطابي ورم شاناك وذان لي عند الوداع ما شانا لك وجهنا إحسانا jërëjëf jërëjëf sëriñ Fallou tey yaakaar naa ne ëttu murit baatu jaral na la boobu dana ci ñëw ay yooni yoon waaye bu la yàlla jaralee da fexe ba doo sukkandiku ci kenn ku dul moom. bu la yàlla jaralee doo yaakaar kenn ku dul moom bu la yàlla da jaralee doo doyloo kenn ku dul moom ndax kat bokk yi koo yaakaar yàlla la yaakaar li taxoon sëriñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul mësta tàllal loxo kenn kudul dul boromam. boo amee seetlu it di nga xam ne njabootug Serigne Touba gii de mësuñoo tàllal loxo kenn ku dul Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul yaakaar naa ne Serigne Saliou daan wax ne saa bu état lum ko war a defal fii ci dëkk bi day doon loo xam ne yittey askan wi yëpp la te moom mooy gën a néew lu ciy jëfandikoo. Mm-hmm. yoon lay doon wala barabu fajukaay tey jamono ngi dox ba waa kër sëriñ Touba lépp lu ñu yittewoo ci wàllu woowu dañu koy defal seen bopp ndax dañuy bañ ku leen mënal sañal leen tey wax nga ko léegi sëriñ bi moom buy defar yoon sax ay jumtukaayu boppam lay jël. di ko defar ba pare it ci wàllu emploi li mu ci créer kenn xamul nu mu toll ndax da ngay seet jël la ca ba ngay doon tuut tànk yar la toqi la jàngal la tàggat la utal la métier jëlaat la hmm. lu am maanaa ngi noonu sëñ Fallou Galas te jàpp naa ne loolu autonomie ak indépendance moo la koy may ndax bu lay yarkat du yem ci yar la képp bu lay jàngal du yem ci jàngal la képp nag boo tawatee moo lay faj te bu lay faj day taamu barab yañ lay fajee ndax day dem gëstu bu dee bët la mu seet kan moo gën a xarala ci wàllu bët fu mu mën di nekk mu yebal fa dongay bu dee leneen la kasaale ko na ko noonu loolu nag yaakaar naa ne yaakaar yàlla wóolu yàlla ak doyloo yàlla te kenn amu ci ndend ca digganteeg Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul Serigne Fallou Galass Sylla jërëjëf jërëjëf sëñ seex euh, jërëjëf itam mbokki téléspectateurs yi jàkkaarloog ñun ñoo ngi amaat mbégte di àndaat ak fii ci jataay bi ci Touba Mbacké di barab bu tedd bi nga xam ne Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké mu Serigne Salihu tànn na ko jaayante fi ak boromam subhaanahu wa taala di fi liggéeyal yàlla ci alalam waaye ci am xelam ak ci dooleem sëñ Cheikh wax nga dëgg euh, sëñ Cheikh soo mu mën a dem wàkkirlu ci yàlla dafa métti wa man yatawakkal ala llaahi fa huwa hasbuhu waaye nag dëgg-dëgg tawakkul moo jafe ndax yàlla dafa ratax te te boo nee wàkkirlu naa ci yàlla rek day am ay testu yu la yàlla di seete ay test yum lay seete ci ay natt yum lay teg ci ay jafe-jafe yum lay dugal. yombul de wa déedéet ah. ndax yàlla yàlla yàlla du wax du ci génn ah, te boo bu xasee booleek yow duutu la contrôler. kon jaral na la day wóor de moom. bu xasee booleeg yow. Hmm. duutu la contrôler. Ah. lu la neex def. waaye bala ngeen wax ba ngeen boole nag yéen ñaar mooy am problème. Hmm. moo tax sëñ Cheikh bi mu ne bërët na man yàlla laa bëgg a booleel. Hmm. Ah, nag jaar na ci ay jafe-jafe. nooy yàlla. laa ilaaha illallah mooy dootoo amuk tànn doo amuk bëgg doo jaxase yàlla leneen. doo jaxase yàlla ak yeneen. sëñ Tuubaa daa waxoon benn baat bu am importance jàngkat yi xam ne li may bëgg wax. laa ama amadou yeddi ba ba addunay tukki. sama loxo bii du ma ko tàllal ila nazara jëmee ko ci nasaraan yi laa la wax laa amadu yadi mhm. ba ba addunay tukki mhm. du ngeen dégg na ne Ahmadou Bamba tàllal loxom bi jëmee ko ci ay nasaraan moo ne sëñ Tuubaa day mhm. mooy ki ëpp ndimbalul yàlla ci adduna damay wax rek ne bisu démb bërki démb surna xasida bi la ko tàmbalee ci yonent ya ak cër bi leen sëñ Tuubaa jox ak ni mu defee tawa tawasul ci ñoom ba ñëw ci sangam bu tedd bi ne Moustapha sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moom bindut alxuraan daa wàcc ci moom mu dàq jàng ñëpp rek waaye boo bindoon aw turam du ko xam mm-hmm. jaar ci mbooleem wàllu yu yàlla yi fi mas a jaar mm-hmm. mbooleem ku mas a topp ngay nitug yàlla mm-hmm. ku dajale woon sa sa mbooloo sa mbooloo indi leen ci benn barab na leen damaa bëgg li ma liggéeyal yàlla kenn ku nekk na ci jël ab gopp na kenn ku nekk jël ab gopp da nga desal mbooloo mu yurti gopp te bay lu wér. mennum sëñ Touba la yàlla masa wàcc ci àdduna sëriñ Muntaxa wax ne na ñëpp daje Touba te kenn ku nekk boo ñëwee na nga yor ak xasida gu bokkut ak ga sa morom yor nangami million daje Touba kenn ku ne yor xasida gu bokkut ak ga sa morom yor ca jëggaani woon yëpp sëñ ko taalif ku dul sëñ amoo ko. ab bu ñu xasida kenn de. rek. ab bu ñu genn xasida gu maami kenn bind. xasida goo fi gis rek seen maam ko taalif. te murid yi ku nekk nga bëgg a xasida. te kenn te am na luñ ba jeexalun kenn ku nekk ya nga xam. Hmm. jàng nga ko mu des. te ña ñaata million nga fi teew. moo tax ma leen xoolaat leen sëñ Tuubaa. loolu ci digganteeg nag li li loxob ndijoor bi bind rek la de. képp bokkut ak la làmmiñ woo baax. Hmm. déedéet hmm. li loxo bi bind li làmmiñ wax a kopp. seetal gis nga li loxo bi bind. ci diggante Moustapha sallallahu alayhi wa sallam mm. ak ci lu ñuy liggéey lu ñuy liggéeyal yàlla ci mbind mm. li ci sëñ Tuubaa bind li aw làmmiñam waxam te bind koo ko ëpp moo ne li làmme ñuy wax ak li xalima gi bind li cër yi defar ko ëpp. Mm. boo doon boo doon boo doon tas tas par benn sëriñ bi. maanaam ci sëñ Tuubaa amul morom ngay dëkk. ci amul morom ngay dëkk moo tax képp koo xam ne ñi ngi lay tudd di tudd sëriñ bi. Mm-hmm. bind baa ngi nii dëgg la. ndax kii xam na ne président ba nekk Amérique ba nekk France ba nekk Allemagne réew yi gën a riis ci àdduna yi seen président yi ñoo soxlaal sëñ Tuba waaye sëñ Tuba soxlaalu mhm. dëgg waaw ñoo soxlaal sëñ Tuba sëñ Tuba lépp wallaahu yanzuru nii man ndimbalul yàlla moom la ma yàlla beral wal xalqu tatbauni mbooloo mépp jóg topp si ma fil barri wal bahri ñi ne ci biir géej gi ak ñi ne ci biir jéeri ji waaye buñ dikkee lañ may fekkee ku sëriñ tubaa rek mënoo wax baat boobu saa nafin bi laa dararin may borom njariñ lu àndut ak lor ku dut boo amee njariñ am nga lor sëñ Bamba laax boo amee njariñ am nga lor sëñ Touba képp borom njariñ lu àndut loolu moo tax sëtam yi boo tànnee ku mel ne sëriñ Seex mu sëriñ Saalihu mu liggéeyal lislaam liggéey bu mel ne ca yemut ci lii boo xoolee jumaa ji architecte yi maçonnerie yi carreleurs yi peinturekat yi décorateur yi ba ci ñi nga xam ne ñoo yoroon ñaar yi ba ñi nga xam ne ñoo defar forage yi di bënn ndox mi ñoom ñëpp ci biir daara ji lañ nekk ñoom ñëpp ci biir daara ji lañ nekk xanaa kooku mënal na boppam wallaahi wut ay machine am yu defar ay yoon sëñ Cheikh du jëggaani du àbb yemut ci loolu sëñ Cheikh boo demee ci daara yi li ñuy dundee yaakaar naa ne keroog doon nañ ci waxtaan ak mm-hmm. ngi koy siyaara bu baax a baax ba tey nanguwul kenn xam ko nanguwul sax ku ko xam <laughs> waaye boo demee ci daara yi di ci li ciy dund sëñ Abo moom dafa yéemu ba ne lii vraiment dañ ko war a génne àdduna bépp xam ne sëñ Cheikh lii lay daj ndakate moom siggi wut tel te siggi xoolal 18 tonnes mm-hmm. ci moins de 15 jours 18 tonnes loo xam ne ceeb lañ la wax. ak ya cay ànd buñ saako ceeb ba jeex na sama bopp bi. 18 tonnes yooyu. Mm-hmm. calculer lay tax mu man ñu mën koo jëfandikoo. Mm-hmm. ci wàllu diwlin wàllu nduguma. Mm-hmm. wàllu yamee àndal yëpp. suukar ak café nga mën a nekk ne 400 kilos yu café moom des na ko tàngal ci weer. 400 kilos yu café 400 kilos yu café ku ko tàngal la muy àndal ci suukar doo ko wax. ngir taxawu doomu aadama yi. ngir taxawu doomu aadama ci ñu ngi koy jàngal kenn du ci sa doom. macha allah ñëpp buñ mokkalee ñibbiwaat buñ mënee yor seen baay. wallaahi. loolu nga koy liggéeyal lislaam liggéey bu toll noonu. Mm-hmm. ba noppi yor seenu paj mm-hmm. barki démb damay waxtaan ak euh, alaaji Gabu Gay mm-hmm. mu sëñ Saaliw ma ne ko boo dee liggéeyal yàlla dëgg sab liggéey du ràpp du réer gis nga fuur bi nga defoon xel koom ci jamonoy sëñ Saaliw sëñ Cheikh da ko yeesalaat yeesalaat na mburu maanaam dongo yi man wuru maa nekk Touba sama waa kër di lekk mburu te ñoom ñu nekk xel koom te duñ lekk mburu di jënd ay yu fëriñ yu bari wut ay maîtrisards yu man mburu ñoo leen lakkal ay mburu daaray alxuraan dañoo dem bustaan mm-hmm. daaray alxuraan ji sëñ seex def mm-hmm. magis mu jëndal leen booba moquette yu seer yi nga xam ne day ànd ak mat la nooy nepp nooy mm-hmm. mu koy andi ko def ci néegu dongo yi ma ne ko sëñ bi mu ne ma ab dongo ab daara wër sa toog fu dëgër daa war fi muy toog di jàng daa war a nooy ba du sentir ab coona defar leen ay xoolal sëñ am ndox ndox yi ñuy naan. Uh-huh. day doon ndox yu sedd te teey nga xam ne dongo bi. Uh-huh. lépp loo xam ne da ko waroon a gàllankoor ci wàllu addunaam sëñ Cheikh da koy dégaaseel loolu. macha allah. da koy dégaaseel loolu. nga xam ne dund gu teey ngay am dund gu neex ngay am moo tax dongo bu ne ca daara ja uh-huh. mu gën a la sa kër baay. mais yëmul ci dundub dongo yi. Hmm. xoolal koddum dongo yi. Hmm. Hmm. te kodd li ci ëpp importance. sëñ Cheikh day contrôler du bàyyi dara. gis nga ak col. sëñ Touba daana ko dénkaane day wax ne murit yi day leen sol sama col gi. Hmm. day leen sol sama col gi sama col waaw mooy lan. coluk sëñ Tuubaa. Hmm. mooy lii ñu xamee. Hmm. ay turki njaareem ay sabadoor ay xaftaan ay bay son bu ay baylaat yooyu mooy tulug murit colug murit yu ànd ak caaya loolu de dafa bokk ci moom sa bopp ba tey sëñ Tuubaa dafa wax ne li ma lay wax sëñ Tuubaa dafa wax ne bu ngeen ko dee sol saytaane daf leen di daw la nit tilli di dawee ak xorol daa wax na xam ngeen xorol ñu ne ko déedéet mu ne moo nga xamoon nga bay sa toolu beref ba muy ñor baaxooñ yi ak jaar yi ñëw bëgg koo lekk bant ba nga cay samp solal ko mbubb muy nuru nit noonu ko baaxooñ yu dale dawe boo solee sama col gi ni la la seytaane dawe moo tax day leen sol sama col gi sëñ Seex day contrôler col gi donc nga boo ko dee tarbiye ak di ko yar da nga koy njëkk a bàyyi koo ca la muy sol fexe ba du sol kiloot du salpaanloo lépp luy tax a nuru ab ab bandi du ko def doo takk ab jaaro doo rastawu ya ca aju yëpp ba noppi sëñ Seex du nag nga tilim da lay xottil xaftaan yu baax ba noppi nag di la jox ay robinet ak saabu ngay sangu ba set loolu mooy tax nit ki mm-hmm. xelam tranquille mu wóor ko ne kii ñu ko indi muy sëriñ bi kat mm-hmm. yemale na kook doomam wala sax kii daal moo gën moo gën sans baay ci man loolu mooy sawarloo nit kii pour mu jàng alxuraan man koo mokkal macha doo yem ci dundal leen mm-hmm. nga xool seenum paj ñëw nga ci lekk sëriñ Seex ñaata million lay ñàkk ci walla ay ordonnance mm-hmm. di contrôler dong yi waxtu si siburu yi ma ngay jën ay doom mm-hmm. waxtu lu ci nekk lam tollool garab yooya sëñ Seex nga koy contrôler wut ay docteur yu qualifié yu qualifié yoo xam ne ay professeur lañ kenn ku ci nekk bu dee dentiste bu dee bëñ mu wut ab dentiste bu dee bët mu wut ab ab ab ophtalmologie bu dee euh, neer mu wuti ab euh, nangam ak nangam lu ci nekk ka ca qualifié la ci sëñ Cheikh di yebal du làmbatu mu topp ko te du la bañ ba ba ngay génn bitim réew wallaahi wallaahi noonu lay toppee ab dongam ba ba ngay génn bitim réew xam nga sëñ Cheikh ku mënut ci moom dara hmm. mooy koo xam ne bëggoo baax oh. ku bëggul baax ku bëggut a baax waaye ku bëgg a baax mm. bu sëñ seex doon ñàkk ci yow milliard ngir nga baax jaral na ko jaral na ko waaw ngir defar benn doomu aadama allah loolu mooy taxawaay bu am solo bi nga xam ne mi ngi koy taxaw te du bëgg ku ko yëg ci gën a yéeme kay mooy sëñ Fallu mm. eh, lii ñu fi wax yëpp te sax ñeme wu xuus ca biir lu ñu lijjanti ba xam ci as lëf la mm. waaye du moom moo ñu ko wax ndax boo ko laajee du la ko wax waaye eh, ndekete yàlla su la jaralee doo jeexal dara. déedéet da ngeen di boole. da ngeen booy boole gi nga doon wax lu parce que da ngay fekk ku yor lu ne gàññ mm-hmm. nga jël sa as tuut. Mm-hmm. ñëw tàbbal ko ca biir. Mm-hmm. waaye as tuut la nag. condition ya ngay yay tax. mu nangu ko loolu nag mooy mooy mooy mooy jaar-jaar yu jafe yu tar yi nga xam ne. loolu laa lay wax obstacle yi nekk ci yoon bi. loolu laa lay wax nii. yàgg na. jamonoy Serigne Saliou. booba jamonoom melagut nii moom sëñ Cheikh. Euh, te booba jafe-jafe dëgg mi ngi koy dund. Mm. amoon na. Mm. ay partenariat yoo xam ne mm. nangu woon nangu woon nañoo génne ay milliards ca jamono jooju de. waxuma benn waxuma ñaar. ay milliards ab lim la. bu takku ci ay milliards. ngir siñanteeg moom benn con benn benn convention boo xam ne. ci wàllu mbay lay jëm. te milliards yooyu buñ ko ko joxoon. dañ ko koy lebal ay at. te lum mu bay ñoo koy jënd. sëñ bi kuy wut procès ngir ñu financé la yow. procès déplacé ñëw ci yow procès eh, eh. ànd ak financement di ay milliards ne la jël ma mm-hmm. ma financé la mm-hmm. xam nga lu ci sëñ Seex teg man daal damaa ñemewut a booleeg yàlla ba mu yàgg mu koy wëlbati ko di jóob boole waat ak i tubaab taxas naa booleeg yàlla ba noppi eh. loolu nag mooy wa in min shay in ilaa indana xazainuhu waaye wa maa nunassiluhu ilaa bi xadrin maalumin gis nga boo xasee booleeg yàlla li sëñ Tuubaa waxoon ca ngay dugg xasainu rabbi futtihat li wa sasahat na la doy da lay ubbil magasin yi. Mm-hmm. magasin yi ñooy ubbeeku. yàlla nag na lépp lu lu nit mës sa bëgg wala nit am ko mi ngi ci sama biir magasin yi mm-hmm. te nit moom day am ak a ñàkk di jeexal nit day wopp ko wéra di yow nag sama magasin yaa ngi ni dootoo jeexal lu la neex ti tibal loolu nag moo jafe mm-hmm. dem ba àgg foofu yëg-yëg boobu lenn luy loo xam ne adduna gërëm na ko mm-hmm. soo ko indee yàlla moom du ko gërëm sëñ Tuubaa sëñ Seex dafa fexe ba lu adduna gërëm wàcc ko fa di wutulu yàlla gërëm loolu moo ko may fi fi mu j euh, yaakaar naa ne euh, ëttu na ci xam nga sëriñ Touba yitteem yëpp ci gindi doomu aadama la woon. Mm-hmm. waaye defe naa ne kon liggéey bi dëgg dëgg dëgg dëgg. Mm-hmm. ndekete mooy taxawu doomaadama ci fànn yëpp nag. Mm-hmm. te li ci jiitu mooy fexe ba jël ko ci tuut tànk mu xam boromam. lu am solo la. bu xamee boromam. wóolu boromam. doyloo boromam. moo tax dangay gis produit bi nga xam ne moom la Serigne Saliou di génne ca xel koom te tey boo demee xel koom. fekk Serigne Cheikh transformé ko ci mbooleem garab gu ñu fa jëlee woon rek. Mhm. remplacé na ko geneen garab gu ko gën téeméeri junni yoon. gën fop loolu it di lu di loo xam ne te muy doon ay garabu meññeenteef yoo xam ne ko dem mën nga cee teg sa bët. Mhm. Euh, ñaareel ba. Mhm. sëñ bi développement ndeke du tabax tali ndeke du tabax pont. développement du sax xàll ay yoon. dëgg dëgg développement mooy ñëw fekki doomu aadama ca ba muy nekkee gone. maanaam di doon ku nga jël ci moom def ci moom ragal yàlla nga jël ko def ci moom wakkirlu ci àlla nga jël ko def ci moom doyloo yàlla te loolu moo di ab mburit sëriñ Muntaxa de dafa wax fii ne balaa ngaa mën a doonub euh, mburit da ngay doonub jullit te ak taalibe du lenn lu dul yar ak teggin léegi nag ki nga xam ne yitteem yëpp addinaam yëpp daf ko jaral mu sacrifier njabootam. wan leen gannaaw. ñu yóbbu ko Gabon ay at. ci àll bi nga xam ne moo gën a danse ci Afrique. yaakaar naa ne ci àddina sax lay wax. mu def fa lu jege juróom-ñetti at. moom kenn tundum ana ku ko doon jàppale. kenn ana ko ko doon wéttali kenn ana ko doon gunge boromam na ko bind xasidaam ya déedéet na ko tagg yàlla ci lu jege juróom-ñetti at hmm. ci climat boo xam ne yaa ngi jëlee nit ki foo xam ne dafa tàng hmm. amul gàncax hmm. amul garab du taw yóbbu ko foo xam ne day taw vingt quatre heures sur vingt quatre kon muñ na de muñ na bay kon yàlla jaral na ko de. jaral na ko ak it mu xam ne. Mhm. sunu borom moo ko fi indi te sunu borom moo ko fay jëlee. Mhm. mësta ñaan intervention. keroog bañ ko bëgg a jëlee ndar am na ñu dajaloo ñëw ngir ñaanal ko intervention. Mhm. lu mu wax. du laaj ndimbal kenn ku dul sunu borom. te lépp lu ko sunu borom teg. da koy tegoo. loolu ñu war fee jàngee fi jamono toll kon ñun la mun taxaa waxoon ne. bu fekkee ne dañoo topp àddina. ba talatu ñoo jaamu yàlla. bu fekkee ne jéemu ñoo xam fi sëriñ bi nekk te dàkk ko xool mbégam lépp lu ñu dal bu ñu jàmbat te wàllu jàmbat bëri na de ndax loo xam ne yaa ko teg sa bopp loo jàmbatee yow lu la dal yaa ko teg sa bopp ndax sëñ bi xàll na yoon wi njabootu sëñ bi ñëw nañ xal na yoon wi kenn du wax ne aw ma référence kenn du wax ne aw ma kenn du wax ne aw ma royuwaay lii ñuy wax nii kat lu ne fànn la kenn du ko jeex kon lu waay def boppam kon jàpp naa ne bu ñu delloo ci sëriñ Touba bi nga xam ne waxtu wu nekk sëriñ Mountakha di ñu fowoo nit ñëw leen ci sëriñ bi te li ci gën a yéeme dafa ne boo ne bu ngeen toppee àddina de di ngeen perte lu bari waaye bu ngeen dikkee ci sëriñ bi te mu doy leen te sëriñ bi doy ñu sunu diggante ak sunu borom àddina dana tegu ci seen loxo su fekkee ne yàlla may na la nga dajale ay ay doomi aadama yu bari yor leen ngir lan yar leen ngir lan yiir leen ngir lan gindi leen te séentuwoo ci dara lu dul màggal sunu borom loolu yaakaar naa ne ci lañu ñu sëriñ bi woo te ku ci nekkit defe naa ne loolu mooy ndono li sëriñ Fallu. allah eh, jërëjëf sëñ Cheikh jërëjëf sëñ Cheikh euh, jërëjëf itam mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñoo doon seetaan day mel ne sama caméraman mi ngi may xamal ne li ñu dese cee waxtu bëreetut euh, ñu leen di jaajëfal bu baax a baax noonu nga ko waxee rek sëñ Cheikh euh, xam nga sëriñ bi yàlla def ko yàgg a jaral. waaye nag bi mu ko daataa ko si sëriñ Cheikh sonn na lool may am baat boo boo xam ne réponse la tontu la. ci ay laaj. moo xam muy laajub xel. wala muy laajub làmmiñ. soo koy laaj. waa ñi koy laaj ci seen xel ñi koy laaj ci seen xel. <laughs> wala ñu koy laaj ci seen làmmiñ. Ah, man ñoom lay tontu. Ah, moo xam nga laaj ko ci sa xel yow. Hmm? wala yow nga laaj ko ci sa làmmiñ. te amoo woon ko la tontu Fallou Gallas moo lay tontu. li ma lay li ma tontu mooy. Hmm. yow mi daan gis Serigne Cheikh. Hmm. mu daan def ay saami mat ci bunt këram. yow mi daan gis Serigne Cheikh. muy root bi doom ndox di teg ci buntu këram. yow mi daan gis sëriñ seex muy yar ak jur di ko jaay ci buntu këram nga naan sëñ Cheikh ngay dajale alal yàgg na koo def yàgg na koo def da daan fàggu ndax suñu borom moo ko santaane. ndakate mooy tabaxal yàlla ay daara ndakate mooy mën a defal yàlla loo xamante ni bi dërëmu kenn du ci dugg moo taxoon sëriñ seex yàggal na ci àll bi di sonn di jaayum ndox di jaay matt di jaay lu ne di jaay xorom ngir lan man daal fas naa yéene. dajale nag tey jii moom lay defal yàlla tey jii ana ku daan laaj lu sëñ Cheikh daan wut hmm. lii la sëñ Cheikh doon wut fii la ko sëñ Cheikh doon def kon sëñ Cheikh ma bàyyi la nga tàggatoo mais tàggatoo bi xanaa sant rek lay doon hmm. sant rek. di sant tey ñaanal Serigne Cheikh. mu yàgg fi te ànd ak wér. waaye di ñaanal Serigne Mountakha. di ñaanal njabootug Serigne Touba gépp. ñu yàgg fi lool te ànd ak wér. jërëjëf Serigne Fallou. jërëjëf Serigne Cheikh Amar jërëjëf euh, Serigne Fallou Sylla jërëjëf Serigne Fallou Sow Serigne Ousseynou jërëjëf itam mbokk yi nga xam ne ñooy euh, doon seetaan seen émission Ëttu ñu doon ko amale fii ci Touba Mbacké muy daaray Serigne Cheikh ji nga xam ne moom la fi defal l'islam ngir delloowaate ko Serigne Touba njukkal ci liggéey bu réy bi nga xam ne Serigne ko lim ba nga xëy war ngaa dem ci sëñ Touba na ko jërëjëf wala nga ne ko potum ndox a ngi nii sëriñ Cheikh nag lii mooy jërëjëfam ci sëñ Touba yàlla yàlla may ko fan wu gudd waa ànd ko wér bàyyi ko fi ba mu liggéey ko ànd ko ak mbooleem magam yu baax yëpp ñi ngi sant ñëpp di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu بسم الإله يكفيني الدار يا الله سفي البقاء به لي فيك يا الله بسم الإله يكفيني الدار يا الله سفي بقاء به لي فيك يا الله يا من له الأمر يا من لا تريد